ma defal leen situation wu bés bi tey ajjuma ñaar fukki fan ak ci avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Journal na résultat wu examen ou bés bi ci juróomi maire, ak ñaar fukk ak juróom ñetti test yi ñu def juróom ben fuk, ak juróom ben, ñew nañ positif bon nag am nañ doomu jangor bi ci ben benn fukk ak juróom ben yooyu juróom ben fuk ak ben ay ka contact la yu ñuy suivre ci suñu service juróom yi moy ka bi xamantene moy transmission communautaire mooy ku ko am te xamuñu fan la ko jële juróom yooyu benn bi fii ci dakaar la mooy Médina ñaari Touba benn bi mbakke benn bi Pout ñu leen di yëgal tam ne juróom si ñi ne woon hôpital di faju wér nañ ci bésu tey bi dañ leen génne beneen mbir boo xamante ne war nañ leen ko xamal mooy depuis ci suba am na benn cas grave bu ñu yóbbu réanimation ñi ci des seen wérgu yaram mi ngi am tànn bu ñu xaymaa ba mu commencé ba léegi juróomi téeméer ak ñeent fukk juróom ci ay kaa lañu ñu fii ci réew mi ci lim boobu ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wër nañ si kenn évacué nañ ko juróom benn génn nañu àdduna bon dëkk tey ci siñu hôpitaux ñi xamante ne ñu ngi leen fay faj tolu nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn buñu xolé situation bi ñu leen décrire tay amna ñaari jangat yo xamantene il faut que ñu def ko ci jangat bu ñëk bi moy que né feebar bi yab na bu baax commerçant yi si juróomi kaa communautaire yi ñu am tey ñeent yi dañuy liggéeyee ci marché bon dëkk ñuy demande que ne solu masque bi ñu bañ ko bàyyi mukk ci li jëm ci marché yi respecté bu baax arrêté bi xamante ne ministre de l'intérieur moom la génne am na beneen mbir boo xamante ne tam lu am solo la mooy dañoo bi région ak région dakkul ba léegi te loolu daf ñuy ay tolof tolof yu mag suñu liggéey ñuy wax ne tam nañ service ñu yokk bu baax baax prélèvement cas pour que ñu mën ragné bu baax a baax ñi am feebar bi ci té te guñu ko ñi ngi encourager bu baax personnel de santé bi di len féliciter seen liggéey di wax né joxé nañ ay ndigal yu wër pour que ñu yok bu baax a baax a seen ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi ñaan population sénégalaise yi ñu top bu baax a baax ndigal yi ñu leen jox pour que ñu mën a xeex Covid 19 bi ci réew mi beaucoup. ngi leen remercier bu baax. Voilà.